fii ci gouvernance bu Diourbel lañ amalee CRD ngir waajal màggal Daaru Salaam édition 2019 gouverneur bu yees bi di gi mbay ànd koog mbooleem chef de service yi càmbar nañ ponk yi nga xam ne moo jëm ci organisation màggal gi ci teewaayu comité d'organisation bi ak ki nga xam ne moo di Serigne Mame Cheikh Anta gouverneur di ñëwaat ci mbooleem ponk yi nga xam ne jël nañ ko ci màggal gi. Euh, hydraulique indi ay camions citernes hmm. indi fa quinze bâche ku nekk xam ne bâche bu nekk moom citerne la ngeen li Senelec wax moom ne moom euh, dina indi ay équipe de maintenance ba ku lu dara paan mu taxaw ci dem beeg dikk bi transporteur yaa ngi nii nee nañ ku bëgg di nga ñëw ku bëgg di nga dellu heure bu la neex yaakaar naa ne loolu dal na xel ba même bu tawoon ONAS dina ci taxaw ba kenn du ñëpp am fu ñu jaar commissaire sécurité ku wax moom di nga wax sécurité màggal ko ko wax wax sécurité ndax ñiy gàmm ak ñiy ras dem jamono bi réew mi bëri ay yëngu-yëngu lool loole moom moo tax gouverneur rafet njort ne événement yu demee nii dana indi jàmm ci réew mi. kon boog bu ñu yàlla mayee ñu am jàmm nañ ko sant yàlla mu yokk te ñuy bañ a fitna di ñaan yàmm wasaaroo ci Sénégal lu mel nii nag dina yokk jàmm ay mbokk daje. ñu jàng alxuraan ñaan waxtaan ci diine yaakaar naa ne loolu la ñu mag ñi bàyyil comité d'organisation màggal Daaru Salaam bi ci kàddu yi Serigne Cheikh Anta rafetlu nañ mboole matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko waaye it Serigne Cheikh Anta ñëwaat di leeral li nga xam ne moo sabab màggal Daaru Salaam gi. Daaru Salaam Daaru Salaam. noonu ñu la ko waxee. nee na ñu la ko waxee rek. moom la Serigne Touba njëkk a sanc. nee na moom la Serigne Touba njëkk a am ko ci dëkk bu mu moomal boppam. ci dëkk boo xam ne bii moo ko moom moo ko moomal boppam. géej gi nee na bi mu jógee ci géej gi nag ci liggéey boobu. ak si Daaru Salaam. ak si nag Daaru Salaam. yenn ko fa sërite yenn ko fa nag sërite ba mu jëlee ko tukki ba. te sërite ba jógewu fa ba tey. na te su sërite jógewul Daaru Salaam ba léegi. bis boobu la maam Cheikh Anta. bis boobu nag la maam Cheikh Anta Mbacke moom. ni ko ni ko. yow mi yow mi moom lépp de yow mi moom lépp. yow mi moom lépp. te xam lépp. te xam lépp. damaa bëggoon bis bii. damaa bëggoon bis bi nga may ma ko. nga may ma ko. ma def ko bisub cant. ma def ko bisub cant. ma man ma di ci sant yàlla. ma di ci sant yàlla. di di la ci fàttaliku. di la ci fàttaliku may ko ko. nee na mu may ko ko. loolu mooy mooy bis bi nee na loolu mooy bis bii ñuy waajal. màggal gi mi ngi war a doon ñaar fukki fan ci diggu ki ren jii mu war a dëppoog 22 wala 23 juillet 2019 ci Daaru Salaam. ay junni junni nit di bàyyi ko fu ne ci biir réew mi bitim réew ngir teewe bés bi nga xam ne ci la Serigne ba jóge woon ci géej gi te wàccoon Daaru Salaam